san di leen sant. ndeysaan. Euh, Papa Ndiaye Lo moom mention spéciale la. macha allah macha allah ah, yal na yàlla wéral baat bi. amiin amiin ah, ah, ya yàlla may ñu fekkee. amiin amiin yaa rabbal alamin moom seetaan rek dafa jafe. macha allah. donc euh, yal na leen yàlla fay. itam bu doon sama sago nag xale laa gaal. ndeysaan. mais bu sama sago eh, violence bi du fi am. Mhm. ndax ñëpp a ngi si biir. gis ah, si biir bu doon sago ñu continuer ka nag. ndeysaan ndeysaan. dégg nga man mii di wax maa ngi sëy. Mhm. yàgg na te naa ci dugg lool. Mhm. dégg nga violence ñëpp ay jànkuwanteel moom. dëgg la. te ci anam bu ne. dëgg la. dégg dëgg la mais benn côté rek laa bëgg ngeen laalaale ko tuuti itam si conséquence yi. Euh, mooy di génne violence bi la dem ba dugal nit ci adultère gu bari. dëgg la. dégg nga adultère yi bari na fi. mais li ko li ko wund yëpp violence gi la. Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. ñu bari ñu ngi koy ñu bari ñu ngi dund te mm-hmm. ñemewu ñu wax mu jëm kaw. dégg nga. te nul ne fautif itam. nañ jigéen ñi sonn nañu nañ leen bàyyi jàppal leen suturaal leen. Papa Ndiaye yow boo boo ci mënee wax nga mm. wax si. parce que ku mu doon sa sago doo def naka su dul noonu. dégg nga mais am na ci anam yoo xam ne. Mhm. dañ la ko def ba mujj gi booy wund dem jóg def sa farm ba dafay daal di doy waar. Mhm. Mhm. dégg nga dañuy dëkk si jéggalu ñaan yàlla nañu suturaal jàppale ñu. loolu rek dañuy ñaan yàlla. dégg nga adultère gaa ngi fi. divorce gaa ngi fi. polygamie baa ngi fi. parce que da ngay nekk ak sa jëkkër di ko suturaal di ko muñal. mu yeewu suba indi polygamie fekk na amul dara. li nga mën keneen du ko mën muñ. dëgg la. dégg nga. dëgg yeewu suba gis safaan ba leneen dina la wokk nga dem defi naka su dul noonu. Mm-hmm. nañ ñu jàppalee nañ ñu dimbali. Mm. nañ ñu jàppale nañ ñu dimbali. loolu la ñaan yàlla. jërëjëf kontaan nañ bu baax. wallaay ci kii ubbi na paquet bu rëy a rëy ndax li mu ne. Mm-hmm. bokk na ci conséquence su violence conjugale adultère jigéen yu bëri ñu. émission bi te duñ ci jaar. ndax neexul waaye lu am la léeg-léeg soo toogee ak jigéen mu ne la dama gëj a dégg wax ju neex munuma sëy boo xamante ne fu ma toll saagaag nangam ak nangam laa dégg ñoom ñu jël motifu loolu pour dem défiler loolu nag kenn du ko occulter parce que mu ngi ne gaañ ñi ci dëkk bi kon paquet boobu su la ko joxee allaaji te muy ndaw te nekk ci néegu sëy te am na tamit ay moroomam wala boog ñu ko mag ñoo xamante ne ne ko fitna ci sëy tax na fitna googu puus leen ñuy dem xëy na utile leneen loo xam ne mirage la su la joxee paquet boobu nga wax ak ñoom. waaw xam nga xam nga diggante damay wax toujours nii. Mm-hmm. bànneex ñaari ñëpp ko bëgg. Mm-hmm. su yemee képp ci ku jigéen ki neexatul ci ku góor gi. dëgg la waaw ba yemee ci góor gi képp neexatul ku jigéen ki. jërëjëf. dafa am ñu nag. na ma yàlla baal ñi ma ko war ak i góoram. du ñëpp. foog nañu ñoom képp képp képp ku jigéen ke war a nekk ñoo war a nekk bànneex ku jigéen ko war a am bànneex. jërëjëf jële ki ci ligne bi ma ñëw. foofu na nga fa dellu si waat <laughs> alaaji nga fa dellu si waat non gis nga xoolal yow la yow la àddina bi waxal macha allah ca dafa bëyeef allo. <laughs> allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si. damay leb tur bi. lebal nañ la ko te duñ la fayeeku temps man xale laa 26 ans laa am. Mm-hmm. doon sëy. Mm-hmm. mais sama jëkkër. Mm. benn cousinam. Mm-hmm. dañu nekkoon Amérique ñun ñaar di sëy. benn cousinam di génn ak moom. daal di ñuy topp topp ñu topp ñu topp bi may avant mu may takk mu ngi génn ak moom. ba bi may takk. te cousine boobu dafa am jëkkër. cousinam boobu amul jëkkër. ah d'accord. cousinam akan la. cousinam bi da dataa dem ma Mamani Joal lañ dëkk dem ma Mamani di def. Mhm. def di def di def ba mag sama jëkkër amatuñu jàmm. Mhm. amatuñu jàmm amatuñu saam mhm. chaque jour nag damay bëgg woote. mais dama xamul nu may def sama goro ak samay njëkke dëgg la parce que ñoo ñooñu tataa dañ ma defal loo xamante ne ci àdduna. mënu ma ko sax wax su ma koy wax sax sama xol dafay fees. def ci lu baax. def ci lu baax. su ma koy wax sax sama xol dafay fees. parce que Ndiaye loo am na fu ma mës a taseeg moom expliqué ko sama cas. xam naa la waaw. dëgg la depuis <laughs> lool tata hmm. dama am aw ma daal lu ma neex sama sëy fu ba fu mu tool nii sama jëkkër dañ ko tàggaleeg sagoom hmm. ba fu mu toll nii tata man lay bañ a gis hmm. gisatuma bëggatuma gis déggatuma maanaam daal ci le daal lañ jaar ba mu am violence seen diggante waaw kañ mi ngi noonu nag mi ngi noonu te moom ya moom yaayam ak papam tata laa xamul nu ma leen di def ci àdduna ak ay sëram foo dëkk kër famille non non nekk ma nekkatuma foofu. man léegi dama ñibbis sama kër mm-hmm. yaay. Mm-hmm. damaa sama kër yaay parce que dañoo dem ba affaire yi mënatuñu nekk daal su ma gisee dafay dafay mel ni comme si moom su ma gisee daal. bu gis bu titam tey xew. nekkatuma bu titam lay bëgg gis. Mm. moo tax nag ma ni xale yi bëgg nañ sëy mais jigéen ñi tamit dañoo doy waa tataa. xale yi jigéen yu ndaw yi te kii kii ñu def lii xale bu tuuti la dëdaatle mm-hmm. ma ak sama jëkkër mm-hmm. gisatuñu déggatuñu ba fu mu toll ñun ñu ngi woon Amérique di sëy xam nga dëdaatle mm-hmm. boobu moo waral sama jëkkër indi ma ba Sénégal teg ma fi caay xale léegi dañoo ñeme sëriñ de mi ngi nii ñibbisi nañ ñibbisi na mi ngi fii toog man maa ngi fii toog mënatuma gis barki démb tout récemment dafa woo sama frère bi ne ko léegi comme daal mënatul daf ma bëgg a may may sama baat ma ne ko nag baax na alhamdulilah parce que man depuis décembre ba léegi maa ngi toog seen kër moom mi ngi fii di ma dégg Sénégal gis ma gis mm-hmm. gisuma ko dégguma ko mm-hmm. doom am nañ benn doom bu jigéen mm-hmm. mais gisuma ko dégguma ko ba bi mu toogee xelam yeddu ko mu ne léegi dafa bëgg ñëw ñaan sa ñaan si baat bi ñu njëkkee ñëw Sénégal tam taaj na samay samay parents yëpp taaj leen wax leen ci man wax yoo xamante ne. man dama ne sax est dama man foofu laa commencé ne kii bi nekkee tayu ko. est-ce que wér na. di wax wax yu ñaaw yoo xamante ta man fu mu toll nii damaa bëgg jël sa numéro sa ñëw sa kër. ma toog ak yow posément waxante ak yow. na jox la ko dégg nga. Ah, bul quitté. jërëjëf kooku di xam naa ko bu baax lii lépp uh, ay paquet doy waar xam naa ko ti li muñ bari na ak li muy jànkonteel xam naa ko dëgg la wax na dëgg ba dem na seen kër dëgg la waaye dama laa waxoon ni la yaa ngay ñëw ca soxna su waaw rek mm. dama la ni adultère bi ñi nga xam ne bànneex violence conjugale waaw yaa ngi dox laa la dafa bari ñoo xam ne ñi ci ay góoram. Hmm. foog nañu. ñoom doo nga ko yeyoo. góor jigéen waru ko am. Hmm. <coughs> jërëjëf te bànneeku jigi góor nag. Hmm. su lawee ba xoolam tooy nag. jigéen a ko defar. ndeysaan sa yàlla li ko indi nag yii rek la. wax bu neex jumbul góor. ndax buy labati wax bu neex koy may. mooy tax mu rentré ba mu fa place. am na ñoo xam ne suñ la xasee ba takk dootuñ waxati wax ju neex de. waaw foofu laa jëm si. bisimilah. dama ni sëy ñaari condition la mm. muy nawet ba nangu mm. kenn ku ne na góor góorlu ba gerteem set muy kemb mm-hmm. bu bàq tooyee xamal na koy suule mm. waaye bu ko négligé ndaxum ñax topp caay bay ndax mu leer dëgg la ku bàyyi sang mbooy nag ba gisatoo gerte ga yaa wor dama ne toujours ne la jigéen baat la bu sunu borom wàcce bu la jigéen mënatoo koo fay. la koy neexal nag ñett la. du dépasse. jële ki ci ligne bi ma ñëw. <laughs> la koy neexal ñett la te du dépasse. du dépasse. bësal bësal foofu sa baaraam <laughs> ñu dellu si allo. <laughs> allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi nuyu tontu de kenn di nuyu Papa El Hadj. ñu ngi lay fay bu baax a baax. tout à fait man étudiante laa Paris laa nekk. Euh, waaw moo a suivre dégguñu la dégguñu la dégguñu la waxal ci kaw. man étudiante laa Paris. étudiante nga Kaffrine Paris Paris. ah Paris. léegi dama nekk vacance moo tax ma mën a suivre seen émission. Mhm. léegi am amaguma jëkkër mais bëgg naa ci participer quand même. ah yéen a yéen a moom émission bi léegi nga am nag. léegi ñoo ngi wax ci violence conjugale. Mhm. violence conjugale xam nañ ne datul démb euh, lu yàgg am na waaye tey la gën a ëpp tey la gën a fëstaal. Mhm. dafa am lu am solo loo xam ne rëcc nañu ci wàllum éducation je mhm. ci biir kër yi surtout pour jigéen ñi ak pour góor yi bien sûr. moroom jigéen ñi bëri dafa am loo xam ne lu am importance loo xam ne daf leen rëcc ci sëy. mooy base sëy. léegi jigéen ñi li jël lal ko ci sëy moo nekkatul lu dul dëgg. Mhm. yaa ngi jël sëy tey teg ko ci matériel teg ko ci leneen. Mhm. loo xam ne amul important loolu boo xasee ba dugg ci biir sëy bu jeexee. Mhm. ay problème yu mel nii rek la mën a jur. bu foog naa ne bu parents yi defoon le maximum am na ñuy yaree seen doom yi xamal na leen xëy na du alal mooy defar dund du alal mooy defar sëy. di nga concentré wu ci leneen lu gën a am important ci góor bi nga war a sëyal pour seen sëy neex ëllëg. te mm-hmm. pàcc loo xam ne day jeex. Mm-hmm. damay joxe sama exemple dama nekk ci ak sama yaay joo xamante ne nii daan dooleem rek la nekkee ci dundam. Mm-hmm. ndax ma daan xool ci ay bët. dama gis nga lii ma am nii yëpp yaakaaruma ko si kenn man maa liggéey ba dee amal ko sama bopp tey. te man ci loolu laay woy tey damay liggéey ba sonn ngir amal lenn sama bopp. Mm-hmm. yaakaaruma ko ci góor boo xam ne moom laay sëyal ëllëg. pour lan mm-hmm. pour ma concentré wu leneen ci lu leneen lu gën a am solo ci jikkoom. Mm-hmm. ci loo xamante ne man ak moom mën nañ cee woy. donc bokk nekk na point bu am importance boo xam ne buñ ko jéemoon a corriger rek dina wàññi yenn boobu ak violence. parce que da boo daf boo dalay loo xam ne du dëgg. yow dalal sëy ci lu dul dëgg ngeen ànd ci loolu. ba ci jeexee problème yi mooy ñëw rek. loolu ci wàllum jigéen ñi la. Mm-hmm. góor yi aussi am nañ part de responsabilité kenn matul ku nekk am nga say jikko. waaye mm-hmm. yaakaar naa ne góor buy comporté woon ak jabaram yenn yi bu doom bu jigéen juddoo wala doom bu góor mu gis ko muy màgg yaramam dafa war a daw. Mm-hmm. xelam ñëwaat ne li may teg nii sama jabar tey ëllëg sama doom bu góor mun na ko teg jabaram wala sama doom bu jigéen jëkkër dina ko teg. jëkkëram dina ko ko teg. te loolu seen xel du àgg foofu noonu. yaram bu daw boobu boo ko amee nga rattrapé wu corrigé ni ngay comporté wook sa jabar ngir ëllëg sa boobu mu am dund bu gën bi ngay teg sa jabar tey loolu yaram bu daw boobu buñ ko mënoon am rek yu bëri mën nañ ko bàyyi. ca jërëjëf. mais mhm. doy na waar daal. doy xel yi tey moo àgg foofu te xëy foofu lañ war a jàppale ñu ji daal. Mhm. Euh, defar xol yi c'est aussi ya am na beneen point aussi c'est que tamit nañ waxante dëgg. suñu mm. yaay duñu wax lan mooy réalité sëy aussi. Mm-hmm. da ngay gis tey comme tu dis da gis benn benn benn benn yaay ci biir kër la koy jàpp jëkkëram di teg ci biir këram du ko wax kenn du ko wax kenn lu gëmal doomam leneen loo xam ne du sëy moom day jàpp ne sëy moom lu neex la rek sama yaay dama kaa gis kontaan ba dee kon man tamit man ak sama jëkkër damay kontaan ba dee alors que ne ci réalité bi yaayam dundul loolu yëpp donc léeg-léeg bu ñu am sa waxtaan ak seen doom yi leeral na leen ni wan na leen ki ne fay moom <laughs> nekkul lu leer xamal ne bu boo te xasee dugg yaa yaakaar ni nit ki da war a muñ ba dee rek wala nga dem bàyyi. yàlla boole na keneen koo xamante ne mën nga muñ ak moom muñ rek na de waaye léegi nag affaire yooyu yëpp ngay sànni gars yi comprendre tuñ ko daal. ca jërëjëf ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu étudiante yëpp yëpp macha allah kontaan nañu lool lool lool ci sa participation. laaj yi xam yal na leen yàlla jàppale. waaw gis nga dégg ma ñëwoon foofu dama ni. Hmm. ñett yi neexulub sëy du dépasse. Hmm. mook malaat bu sonn yem. Hmm. pikir du ko wérloo. dëgg la. ak rentré ak opéré déedéet. bu ne cëpp na nga koy ak yére ba xolam sedd. feebar baay wàcc. dëgg la. dépasse bu mat. bànd ak coona. dina di yett ci jongoma. dina ko jeexloo fi dem dina génn du la ñeme. dina perdal teg ca. bànneex dootu dugg. ndax du ko tal. ni ngay préparé. boo jàngee université war faa dem. ci école ba am ay loolu ñuy wax baccalauréat. Mm. ni nga koy paree. Mm. ni lay ma war a pare ak ayam. Mm. jërëjëf si ligne bi may dikk. <laughs> <laughs> alaaji violence conjugale tax na bopp yëpp nax na waaw ñëpp kenn doyalul ci tam bi ñëpp nax nañu allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sant